junni ak ñeenti doomu Dakar ci lu ëpp téeméer ak fanweer ak juróom benn junniy demande yu ñu jébbaloon municipalité bu Dakar Plateau jébbal nañu leen fukki junni ngir ñu waajal seen feetu tabaski. tey mu jox ku si nekk mu jox la cinquante mille francs xam nga chef de famille tey bu ñu jox cinquante mille francs loo si teg matal matal sa xaru tabaski. noonu la koy defee nag ren nag boo xoolee octroi de plus de 14000 bénéficiaires à hauteur de 700 et quelques millions. Mariam Diallo bokk na ci bénéficiaires yi war a am lu toll ci juróom-benn fukki at moom nag tàmm na bi leen ndimbal bàyyee ko ci mairie bi. du ñu jox secours ñu dox ci ba ñaq mbaa ñu daw ci ba sonn mbaa ñu dox si ba ne jaru ko woon da ngay waaxu ñu dugal la nga jël ko boo demee da nga koy dimbalikoo sa njaboot jëriñoo ko. tey jii ñu gis ne dëkk bi dafa metti. met trop met ku la na tabaski defar na ko de ndax ma jógee fii ca marché ba laa jëm moo demee dinaa jënd soble jënd lépp. bu ñenn ñi jàppee ne koppar yi taxu koo takku njaboot yu bari nekkee ci Dakar Plateau ñoom dañuy xaar bu baax a baax bi leen dimbal bokk na ci père de famille bii nga xam ne xamle na ne amagul xaar. Aliou Ndoye yal na fa yàlla di taxawu ci barke Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam si moom surtout ba suñu âge bi ñu toll nii amatuñu dara mënatuñu dara suñu yore njaboot kontaan naa mënu ma amu fa dara. mu amoon ci yaakaar lool soxna si moom itam demande am mairie bi jox na ko ko moo tax it am na ci mbégte. ah jàppale nañu de jàppale nañu te xamul ku bokk fii xamul ku bokk fa ni mu yéexee nii sax xawoon nañu tiit sax waane bi ñu xëyee rek jot message bi. ñu ne alhamdulilah Alioune fukki junni ñëwaat na. juróom-ñett téeméeri million ci suñuy koppar moom la mairie bi dal di décaissé mu dal di ñeel aide tabaski yi ginnaaw bi mu desee ay fan ñu dal di koy màggal fukki fan ak juróom-ñaar ci weer bii ñu ne opération bi nag ñu amal ko ci transparence ndax mandat yi bu génnee rek dañu koy dal di jébbal bénéficiaires yi nga xam ne dañoo inscrire woon lu ko jiitu ci benn plateforme informatique bu mairie bi.